le président de l'Assemblée nationale, chers collaborateur des ministres, chers collègues, je vous salue. Monsieur le ministre, permettez-moi de saluer M. Mamadou Alsan Kamara, votre collaborateur, M. Ibrahim Ndiaye DG à Géroute, mais M. Ousmane Silla, mon fils, DG de Dakar Demdik, il fut notre collègue récemment, nous indiquons sa Ah, di nuyu buur Kajoor monsieur ministre Sall maa ngi laa nuyu euh, monsieur ministre ñu ñëw waxtaanee jamono dama fiy dégg léeg-léeg nañu dal ñi naan nañu teey ma je pense que heure yi ñu yeewu métti na trop kenn amul jotu ñëw fii di déglu ay leçon de morale député bu jógee jël cinq minutes am di ko wax lu mu wax loolaa ko ñor lu mu wax loolaa ko fi indi nañuy nangul nit ñi seen i considération ñu bëggee nekk des bu ñu bëggee yëf yi jaar ci yoon parce que am na nu mu fiy demee noo xamante ne ku ci nekk da ngay jël position bi nga war a jël taxaw ci te kenn du la ci dindi parce que nit ñi am nañ fulla nit ñi léegi màgg nañ nit ñi nag am na comportement yoo xamante ne buñ ko commencé di digérer bu yàggee tuuti dootuñu ko mën c'est vrai yëf yi day am retard bu amee retard monsieur le ministre il faut ñu wax ko wax naa la ko léegi ci salon bi dama la ne bul mu wàññi micro bi yokk ko dama ne li nga xamante ne moom moo xew mooy Pikine ginnaaw raay Pikine laay wax le département monsieur le ministre il faut corriger waa léegi monsieur le ministre ñun lan lan mën a nekkee Pikine depuis que Pikine et Pikine tali bu bees tali Icotaf tali bu mag xam nga leen di nga leen dégg képp koo xamante ne def nga Canada Limamoulaye wala parce que ñi nga xamante ni ñoo jóge si àll bi si lycée yooyu la ñuy jàngee xam nañ ne ñetti tali yooyu moo am bu ko weesee ñu naan la wàqi naan këri suuf amuñu presque 3 mètres tali yoo xamante ne dafa dugg si biir dëkk bi léegi lañ la ko doon wax maak sama collègue maire de Guinaw Rail Nord Ablaye Diop en dehors mais ñu wax ko fii rek mu leer di kontaan xam nga ku wax la naqari wax lu la neex di kontaan si benn affaire jël nañ en cours la 103 la 103 qui part de Talibou Mag vers Poste Thiaroye lax pont terre ginnaaw rail nord cinq ans ma di ko wax tey yàlla def nañ dimbale nañu que le financement est daa daañu ko defar kon xam nga boobu remerciement dana ci am par force mais bu naqari est-ce que duñ ko wax bi ñu war a def bi ñu la war a def yow yow boo fi toogee yor budget di ko def te kenn du la jaajanti dina baax loolu moom du mën a nekk il faut ñu di ko wax. monsieur le ministre di kontaan ci euh, considération bi ci li waxoon ci euh, Touba kër xalif général des Baye tali bi pareegul woon ça est c'est c'est bon defar nañ ko ba mu pare wasalaam di kontaan aussi ci prise en considération bi ci PAM mais monsieur le ministre di ñëw ci dakaar Dem Dikk gis nga Dakar Dem Dikk mbir la boo xamante ne il faut que vous mettiez les moyens pour que car am ci dëkk bi munoo embaucher dakaar dem dikk ba mu fees dell pléthore de personnel recrutement politique ba pare amul benn kaar am na budget yoo xamante ne soo ko joxee benn direction ni ko liggéey ko mooy la continuation de ce qui s'est passé encore donc dakaar dem dikk nañ ko fortifier renforcer ko ñu defaraat kaar yi nga xamante ne mooy nekk di taxawaalu pour qu'au moins personnel bi ñu fa jël ñu am lu ñu leen defloo parce que nit soo ko xësee ba embauché doo ko mun à tout moment nga di ko dàq wala nga di ko delloo parce que dañu soxla euh, nit ñi aussi di liggéey mais quand ngeen jox leen yeneen moyens nécessaires pour ñu gën a mën a euh, liggéey monsieur le ministre il faut corriger pour le département de Pikine il faut corriger corriger nag bu ñu koy wax du dara lu dul la waroon a am depuis l'indépendance ak tey moo amul dans le département de Pikine moo tax la département de Pikine gis boppam jël ay député jox ko opposition xëy na ñuy dégg seen bopp kon monsieur le ministre waay waay naanal sox matte mu ñu mar man mënoo maa teree wax boo ciipatoo du ma jariñ dara tus dama mënalu sa ciipatu sax daf may gën a neex may gën a yokk alors monsieur le ministre Pikine il faut corriger il faut faudra corriger Pikine amuñu dara da leen di fàtte grenier électoral ngeen leen defoon ñu fippu jël seen i baat jox ñu ñëw fii di leen ko dangal ku maa ko dangal rek ma rokki du nuyu ñi nga toogal kilifa yi nga toogal ñu yaru yooyu ñooñu nga dendal jëlal ci ñoom leçon ñu yaroo ngi toog patriote yaa ngi toog ñu may xool chaque jour a ngi toog di jàng ci ñoom boo demee ci réew dangaa régler xool ña ne ca réew ma nañuy ñuy doxalee maa ngi leen di nuyu sama mbokku député yi monsieur le ministre di la jox sa fii nga toog fi la président Macky Sall la teg nee naa leen du tab ko amul xel nee naa leen Macky Sall du tab dof ku mu tabb rek xam na sa talent jeunesse réew mi nag laay waxal bëgg nga jox ma nopp bii monsieur le ministre Sénégal laay waxal jeunesse réew mi mani ku fowee sa ndaw sa mag réer la président Macky Sall def na fi lu ne ba ma fi juddoog léegi maa ngi doog a dégg président bu toog chaque jour yaa ngi toppatoo lu jëmale jeunesse réew mi ca kanam ubbi leen seen bët yi te xool lan la leen président makki sàll bëggal nun ba nu fi màgg ñun lii gisuñu ko woon dégg naa ñuy wax waxi jakarta intéressé wu ma man Coura Macky man maay wax jakarta yi ci réew mi ñoruma xam nga lu tax yéen a romb xale yi dee ci mbedd mi te yor xam nga lan la 2000 francs toute la journée mille francs la ñuy liggéey xam nga lan la nañu ubbi seen bët yi te topp ministre bii ñu teg pour lu jëmale jeunesse bii kanam man benn mag duma xeexloo man ci mbedd mi ku bëgg a xeex jëlil say doom ku bëgg koo rey ndax sa goño gu oyof bëgg ku la dimbali sama doom man dey du génn am naa doom fii senegaal <laughs> du ma sa génn di xeexal ku yolom gaño laa wax na wax bi leer xale yi dañ leen soxla ci réew mi ñuy ficca réew mi do you guys understand what I'm talking about xale yi dañ leen a soxla bu leen kenn jubali ci Jakarta mbete ay chinois xale yi li leen président Macky Sall barki démb laa romb fii di dem Thiès ñu ne ma ma ni leen waa lii lan la ñu ne ma centre boo xam ni la xale yi fii la ñuy jàngee liggéey il faut ñu ni yaay yi ñu jàngal sunu doom yi <laughs> éducation de base ba ñu am lu nu def bu ñu jàngul Sénégal dafa bari il est très comme man il faut nga am looy def deer bii tege nii ñu leen di lebal xaalis dem leen liggéeyi mais ñu jël ko gaal gi nañ leen waxante dëgg sénégalais yi. jërëjëf honorable moo tax ma ni leen bu leen may joxati trois minutes salut.